adduna jeena ba neex ba jeena dudd ko jot na ngir bamba dem na adduna wey na kanam la war na jëndum ya naay na ngir bamba dem na adduna rus na mbaaram ma res na sangeem sa toj na ngir bamba dem na aduna rag na barke ba dem na meññe ma na ngir Bamba dem na aduna wéy na sopp ko na geddu ko na ngir Bamba dem na teetalu wéy na pulkure wéy na xëy xëylu na ngir Bamba dem na dajale lay naa jagale lay naa taaxaje lay ngir mbar ma dem am denc wey am joxe jot naa xam jëfe jot naa ngir Bamba dem naa waree lay naa na jee naa farjëkki jot ngir Bamba dem naa dox di fa naa mbuurantu wéy naa ma yàlla naa ngir mbar ma dem naa baniix wéy naa rikik wéy naa xaajaan wéy naa ngir mbar ma dem naa jub xocc jot naa jubbanti jot naa tiitu wéy naa ngir mbar ma dem naa tuub moyi jot naa wul yaa janna am yite janna ngir mbar ma danna fa garu janna ca wata janna te yewu janna ngir bamba denna ak rëy la lay te rox la lay na wa yëflu janna ngir bamba denna ab doyo lay na ab juddu lay na am dikko wéy naa ngir bamba dem naa bañante wéy naa werante wéy naa soppante jot naa ngir bamba dem naa pas-pasee ixlaas ak jëfee ixlaas ak waxee ixlaas yëpp jot naa pas-pasee ñesal ak jëfee ñesal ak waxee ñesal yëpp wéy naa waxante wey naa defante wey naa biddanti wey naa yëpp wey naa jikkale xay mbaa yëngu ciy mbaa def lu dul yoon wey naa liggéey jar naa ak jar naa am jar naa waye wey naa man ni yaa naa yóbbal ba tuur naa dundu bindul wena nawo bayandar di fekk say di bulu ne ya gel ni weyna fanana mu takta lama, lamba la ya lamba lamba ko jorna fanana mu ba lama lamba la ya lamba lamba ko jorna de force ko te fonk rakka te aji makka yëgal ni jot naa am diine jot naa xam sunna jot naa roy bamba jot naa ngir bamba dem naa am jaamu jot naa ak jaamu jot naa salaama jot naa ngir maggi ñëw naa ceexaani wey naa ngir maggi ñëw ceexaani wey naa ak ngone wey naa sa cër yi wér naa wërsëg wi doy naa jaamu ko war naa suq bi jaaw te si jëfe ñaaw lëf gënu ko ñaaw defar ko jor naa si sët di daagu nga xëy di daagu li doy nag laagu soppi ko jor naa si kimburéy laal sa ite sew laal rusal ki la rusal la jor naa yaram set laal nga ragg sa yaal sab xol tilim mu laal fot xol bi jot naa foo jëm waar ñuy déglu sag waar te amul ak laar sakku ko jot naa jot mbëre jot naa xam Bamba jot naa am Bamba jot naa lu nekk jot naa du gaaya jot naa xam xëy jot naa xam pey jot naa ate ko jot naa dib xëy jot naa dim xutbu jot naa dim xamsu jot naa ak ndama jot naa ak jot naa laxasa jot naa supiko jot naa dambarye jot naa ambarke jot naa joseexe jot naa xarbaaxe jot naa am jot naa murtu jot naa dib danga jot naa ngërëm la jot naa fajaaja jot naa dab gaaya jot na raw gaaya jot na roy gaaya jot na xëmboot ya jot na ayoon wa jot na roy donga ya jot na tolluun ya jot na far yàgg jot na dug jot na ba yàgg jot na tey geesu wey na ngir yàgg jot na jabula jot na xam yàlla jot na xam yàlla jot na dun ngir ma jot naa su jot naa daw yegg jot naa rocc jot naa nu suuya jot naa wakkila jot naa ak wóolu jot naa ak dëggu jot naa xam lépp jot naa ak dëggu jot naa xam lépp jot naa da ma dunya wa tul pexeem ya da ma dunya da dul pexeem ya da ma dunya dawal pexeem ya du dulmal duniyaa dawal pexeem ya watul ma duniyaa watu ko jot na te foglu ak dee te xaru ak dee yow bala dee xaroo ko jot na fàttaliku dee fàttaliku dee fàttaliku dee te gunge way dee fàttaliku dee te gunge way dee ku nekk day dee fàtte ko wéy naa ay na suñu baay ay na suñu yaay ay na suñu gaay ñi ñëpp wéy naa ay nañu mbaax ñaax ay nañu bar ñaax ay nañu rëy ñaax ñi ñëpp wéy naa ay na jilaani ay na adnaani ay na tijaani ñi ñëpp wéy naa yeneen ya wéy nañ saaba ya wéy nañ xaw si ya wéy nañ wala yowee naa alaxiraay kër tey dëgg moo waar alaxiraay kër tey dëgg moo waar sëñ Moussa ne alaxiraay kër tey dëgg moo waar adduna day war bàyyi ko jot na du dul ma kër te jublu gaa kër te bari kër kër noppalu wéy naa li doy ak waar na mën a def jaar fa gaay we jaar waajal ko jot na lii doy na ak waar lii doy na ak waar lii doy na ak waar lii doy na ak waar lii doy na ak waar lii doy na ak waar naa mën a def jaar fa gaaye wi jaar naa mën a def jaar fa gaaye wi jaar naa mën a def jaar fa gaaye wi jaar naa mën a def jaar fa gaaye wi jaar waajal ko jot naa bis buñ demee saam yal na gis daam te gis sëriñ daam war na bis buñ saam yal na gis daam te gis sëriñ daam allah ray kër yaa film ali inna ilaahi wa allah ray kër kër bis buñ demee saam yàlla nu gis daam te gis sëriñ daam amina war naa subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah rabbil aalamiin